waaw encore une fois. moo tax xam nga xam nga gis naa yu gis naa yu. waaw ñaareeli laaj bi mooy. Mhm. indi problème parce que ñaareeli laaj bi mooy dafa am ñuy wax ni Tullow Oil c'était sa façon de participer ci campagne élection ci campagne électorale Ousmane Sonko. dama ne. Cheikh bu Diop. Mhm. milliards xaw ma millions yi ñuy wax ne jot nañ ko bu ñu ko jotoon. premier jour campagne journaliste Sénégal yëpp a ngi may dégg di toog bunt siège ba ba quatorze heures ñun amaguñu woon ay oto yu ñu yóbbu ndax ñàkkum xaalis ñàkkum koppar gis nga xaalis bi ñu tudd yëpp bu ñu ko amoon wallahi al azim kon élection yi premier tour lañ koy gagné encore une fois mu euh, loolu laay expliqué que nii tey li li am mooy fake news def ko dans la manière la plus pertinente possible ba mu jege dëgg lool même bu du dëgg léegi léeg ñu tegal la fake news boo xam ne yow mi mu concerné sax da ngay toog nga ne waa lii est-ce que du dëgg <laughs> tellement que parfait te lu dul dëgg du yàgg yéen bir na leen ne loolu su amoon état ci boppam moo koy njëkk a luñ bët génne ko jàpp Ousmane Sonko ràpp ci kaso ñi ñuy financé ñi ñuy financé dem leen ngeen gëstu ko ñi nga xamante ne nii ay milliards yi milliards la ñuy def ci seen campagne Mhm. te xëy euh, mënoo wax ne fii tey lañ fi teg lu leer nañ loo xam ne moo leen ko may mhm. nekk ay milliardaire ngay gis waxuma sax waxuma sax candidat yi ah mais juste seen ay lieutenant directeur yeeg yooyu mhm. dans leur zone dans leur localité ils versent des millions et des millions di def seen alal waaye ñun ñi nga xam ne man maa ngi li may wax ni tey dafa baax ñu leeral ko maa ngi woon ci caravane bi dañuy dem dañuy dem dëkk yegg Koumpentoum xëy di xaar Korkolaan Orange Money wala Wari pour mën a jugee Koumpentoum yegg Tamba ci kun ne da jot ay da nga am ay milliards dañ la financé par ci la financé par là xam nga dafa am loo xam ne dafa am loo xam ni euh, day baax sénégalais yi bu ñu ko déggee man sénégalais yi laay gën a waxal sax mooy bu ñu nangu kenn di leen façonnel ni ñuy gisee yëf yi maanaam di leen won ne fii ngeen war a xoolee nañ utiliser seen xel nañ use seen moyen lu ñu tegu mu yenu maanaa xam nga tey bu ñu nelee Ousmane Sonko ay milliards lañ ko jox ci campagne journalistes yi mën a prouver parce que ñi ngi fa woon ñi mën a prouver que ni Pastef avait des problèmes pour assurer le déplacement des journalistes en début de campagne journalistes yi nekkoon suñu caravane xam nañu li ñu dund ci trajet bi yëpp on n'a même pas pu faire le tour du Sénégal loolu sénégalais bu ko dégg walbati ko ñu ne la président Ousmane Sonko ko jox nañ ko euh, euh, deux milliards wala nangam mais euh, boo soxlawul ngay laaj kenn da wax ne lii mënu yoru maanaa koo xam ne da ngay nekk di politique am projet na nekk candidat ñëw fekk fi ñu teg parrainage nga def lépp ba jàll ci parrainage bi ñu jox la deux milliards nga denc deux milliards yi bañ ko campagne yi loolu lay niral ba boobaa de te donc te loolu yan wul maanaa ci ku bëgg a nekk président encore une fois débat bi li ci ëpp solo mooy sénégale yi nañu xam ni ñi ñu jàmmaar lool lu nekk loo xalaat ak loo xalaatu sañ nañu ko ngir mën a des ci pouvoir bi loolu moo waral ñu doon pent seen ay tàcc yoo xamante ne nii noo ko nattee rek mat na ko wala weesu na ko ngir teg ko ci ay jaru candidat te su ngeen xoolee ana yeneen candidat yi cinq lañ woon lu tax Ousmane Sonko rek lañ singali woon c'est pas loolu du hasard loolu du hasard te li kay wone mooy dafa nekk candidat bi nga xam ne ñoom seen information yëpp joxoon nañ leen ne kii mooy problème bi réglé leen ko su ngeen bëggee jàll donc il fallait teg lu nekk créer ay compte ay faux compte def ci photo Ousmane Sonko profil di wax ay waxu terrorisme di wax bu ko defee ñu ne waa waa Pastef di saaga ñii ñu ne waa Pastef nangam loolu yëpp dafa feeñ te bu soobee yàlla tey suba ginnaaw suba buñ fa organiser élection xanaa ñu fentiwaat beneen beneen beneen anam mais dinañ xam ne fagaru nañ bu baax a baax a baax baax et seen xeetu jëf-jëf yu bon yu ñaaw yi dootul am ci réew mi soobee yàlla. waaw beneen laaj bi ma lay laaj mooy euh, relation Ousmane Sonko ak euh, matt sen ndax mi nga xam ni moo bind article bi indi coow li ndax mun nga ñu ci wax dara. parce que amul amul relation wax nañ fi loolu. Mhm. te dama la bëgg jox temps de parole nécessaire pour nga tontu loolu yépp. li ma man du ma wax mukk lu ma xamul te du ma te ragaluma lu may wax mhm. jour yi mën naa ne quatre vingt dix dix neuf pour cent yi bu ñuy jot ci Ousmane Sonko wala ñuy dugg ci Pastef yàlla def na ci man la ñuy jaar ndax bu ñu laajtee dañ naan leen kii moo yor communication mhm. même Ousmane sax boo ko woowee directement da lay renvoyé ci man mhm. Michel seen bi ñoom bi ñu waajal seen documentaire di ñu contacter c'était même pas waxuñu sax waxu Michel Maxen journaliste bi ma contacté di moo ma contacte ne dañuy def documentaire ci affaire yi Tullow Oil bi renvoyé nañ ko sax plusieurs fois parce que Ousmane amul woon jot bi mu amee jot lañu ñu créé bi te journaliste bi may wax mu ngi dégg xam ngeen ko c'est quelqu'un de très respecté euh, bi ñu waxtaanee ak ba ba joxe suñu accord ci la entretien bi am et entretien bi ba muy am c'était typiquement moom naka la gis allô la régie dañu am quelques soucis de liaison ak El Malick allô El Malick certainement euh, oui. waaw vas-y vas-y El Malick yeggalil c'est bon waaw c'est ma ne ci cadre ci cadre boobu la demee contacter certainement Baba Aydara Cheikh Yérim Seck ak ñeneen parce que booy def sa documentaire da ngay jéem a am le maximum de parties possible pour que mu am loo xamante ne ni euh, lu lu lu crédible lay doon comme yow ni ngay jéem a defee sa émission bi ci cadre boobu tamit ci la jéem a contact ci texte bi ak li ma diglu ci ci ci podcast bi mooy def na lu nekk pour rentrer en contact ak ñi faral le président Macky mais ñoom ñëpp dañoo waaf mhm. kenn nangu ci yëy kenn nangu ci yàgg te conclusion ñoom bi ñuy def sax mooy dañoo dem bay wane ne mel ni ñoom ñoo nekkoon derrière ces fake news la donc encore une fois yëf yi noonu la demee euh, un candidat mhm. comme comme comme le président Sonko c'est normal que presse nationale ak international di ko topp chaque jour dañuy woo chaque jour pour ay entretien ak yooyu mais ya a pas comme par exemple ay relation de travail wala et cetera non du tout. waaw yaakaar naa ni loolu leer na dañuy def dernier tour de table euh, parce que question yu bëri évacuer nañ ko alo euh, Baba ay le mot de la fin ci li nga xam ni mooy dossier Tullow Oil bi nga xam ni Michel euh, Madsen moo ko yëkkati. waaw euh, lan nañ ci war a euh, retenir Baba Aïdara. rési li ñu ci war a retenir Baba Aïdara euh, écran géant oui vas-y Baba. si si dossier bi ak documentaire rajo bi génn bi. Mhm. mooy gis nañ ci luñ ci war a mooy yaa une précipitation de mhm. BBC et une précipitation de Michel Martin. Mhm. ndaxte yaa ngi publier dara. te yow mënuloo ko teg saa di ni ubbiwaat nii rek nga teg ko donc loola waroon taxaw lu jóg réellement kenn gis ko. gis nga comme nu ma la ko waxee ni la mhm. enquête bii nga xam am na man maa jël initiative ni dama koy leeral parce que li ma ci intéressé woon mooy kan moo def kan moo joxe xibaar bi loolu moom moo intéressé woon kan mooy Michel Damsel mhm. donc bi ma ñëwee mois de janvier boobu ma jóge aéroport dama dem tactiquement fekk ma préparé benn papier legal document dem ci notaire mu am nu mu ko signal ma ñëw studio BBC bi ma ñëwee studio BBC ma jox leen ko man leen nañ ko signé nag parce que dama bëgg lépp lu nu enregistré fii ni ni am ma am copie ni lire ko après ñu ne ñoom duñ ko signé mais toujours même sacrifice bi taxoon ma ni dinaa fa def dinaa dem euh, dinaa dinaa jóge voyage mu gudd jaar ñetti dëkk dinaa dinaa toogaat ma def sacrifice def entretien bi ba pare nag ma jox leen euh, même même buñ ko nangul signé ba pare rek demande leen poliment ñu jox ma copie mais néanmoins maa ngi woon ak sama enregistreur ma enregistré waxtaan mhm. foofu nag xamal ma ne leen documentaire bi lu ci njëkk am solo mooy public bu muy intéressé français nañuy làkk donc bu ngeen defee anglais rek Euh, dana jaxase xel yi ñu bare duñu comprendre da di gën a indi benn rumbalement bu kenn du comprendre ñi bañ def version française et c'est la première fois BBC di def benn documentaire dëkk bi mu concerné bi translate ko ci seen langue ok gis nga BBC gis nga bi ñuy def Petro Timbo mhm. gis ngeen version française sous-titré bi bu ñu defee bu Vietnam dinañ ko def ci seen làkk voilà comment ça se passe donc y a une précipitation précipitation bi nag man xam naa lu pour yow lan moo motiver précipitation boobu ba une structure comme la BBC di verser wu dans l'amateurisme et l'à peu près c'est de vraiment dans l'amateurisme et l'à peu près nañu dem mhm. parce que dama leen wax man maa ngi def documentaire te dinaa ko publier j'ai commencé à enregistrer quelques vidéos te mm-hmm. vidéo yooyu c'était juste d'abord pour wane BBC précipitation bu muy def bi mm-hmm. ak cette manière yu ñuy def di attaquer sunu yenn gouvernement yi en Afrique mm-hmm. dal seen kaw tiital leen dellu siwaat ñëw liggéey ñoom napp leen ñi leen di jox sunu alali Mhm. man xam naa ci tragédie boobu nañuy dem ak Sénégal ma ne leen li ngeen bëgg def mhm. man yëg naa mhm. parce que yéen a ngi préparer une note d'excuse pour envoyer que l'État du Sénégal si seen documentaire bi ngeen def ci affaire Petro-Tim bi il faut que vous arrêtez Sénégalais yi africains yi léegi yeewu nañu gis nga lu tax Maodo man xam naa je suis bien informé sur ce dossier gis nga kii wu panorama boobu bi ñu ko defee. Mhm. ki def enquête bi. Sénégalais yëpp ni ngi wax Mayna Jones Mayna Jones jegewul sax Mayna Jones. ki ko def keneen la. kooku bi mu paree. pour ñu jox ko une touche africaine. ngi jële Mayna Jones ñëw jox ko ni ko defal wax ci. bi muy ñëw ci BP di dàq directeur beeg yooyu yëpp. def ay maquillage la woon directeur u BP nga doo ko dàqee ci buntam muy dugg di liggéey si pour mu ni daf lay defal entretien mm-hmm. donc am na li nga xam ni ñoom bëgg nañ ko def le combat surtout am na combat bu amoon BP ci élite yi mm-hmm. donc BBC compagnie pétrole yooyu ñoo koy dundal ak suñu yenn nguuru Afrique yi ñàkkee fayda comme anglophonie nag comprendre nañ leen léegi jóge nañ ci anglophonie ni ngi jëm léegi ci francophonie nga xam ni comprendre nu dara man nag relation bi ma am ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko wax na ci plateau yëpp ak fi ma jaar ak Ousmane yëpp leen rek moo ma métti woon bu ma toogee Michel Madsen di ma wax ni wax na ak Ousmane Sonko le 2 décembre ba tey jii nii wax Ousmane jëlul téléphone bi comme nu mu naan jëlee téléphone bi mu ni ma baaba man kat dafa am ñu fi ñëw di def benn enquête lii nañ ma wax tudd nañ la ci dumal ma dinaa jàpp nag man de bu doon man dinaa ko woo ba pare ma ne ka nag duma leen tere ni yëggale seen enquête de waaye dama la bëggoon laaj pour ma xam yow lan nga ci xalaat ndax man ak Ousmane suñu communication bien avant ay whatsapp ak i yeneen di xew la ngeen fàttaliku ne information bi bi mu génnee man maay le premier journaliste bu ko démentir mhm. après les élections dem nañu ba boole ma ak communauté bi ma bokk muy la communauté tidiane mhm. donc j'ai souffert donc bu ma souffrir ci loolu ba pare si ma war a wéeru foofu ni bëgg ma mbas mais dafay métti il faut que les gens me comprennent aussi bi nu demee donc ci mois de janvier boobu si la arrondissement bi am li nu waxoon dans une semaine dañ ko war a publier moom nañu publier cinq ou six mois après mhm. la moo tax nag ni publier ko parce que ki nga xam ne tey jii moom moo nekk noonu di def enquête lépp ngi dirigé wu ci moom selon mes mes mes investigations moom moo doon tulli moom moo doon tëgg donc il faut que les gens là ñu def attention sur ces compagnies là c'est des grande compagnies médiatiques dañuy am seen sponsor ay yëpp teg. moo tax Cheikh Yérim sekk ci ojo bi am na lu am solo lu mu ko wax mhm. mu ni ko enquête bi du yow yaa ko war a def xam nga loolu mooy lan mooy yow da bokk ci suspect donc légèreté ah boobu moo ma metti au fait ci sur ce dossier mhm. parce que gis nga gis nga tu ne peux pas ni yow xamante nañu nangami at ba pare ngay dem di wuti hacker pour mën la wax ni numéro bi man maa ko moom yow mënuloo nekk di def enquête après nga ni ma wax nañ la ay ingénieur informatique wala ku ñu recruter moo doon def la ba pare nga ñëw nga ni ma pour que nañu créer benn email de sécurité parce que yow dañ la frame maanaam dañ la pirater kon luñ fa mënti bind ci sa email yooyu mën nañ ko gis mhm. ba pare bëgg ma pousser maintenant à accuser un étudiant mhm. bi nu paree ci enregistrement boobu dinaa la yóbbantewaat texte bi Michel Marcel moo mu bind mu ni ma baaba off the record est-ce que yaakaaroon yi affaire euh, euh, article bi nu post bi ci journalu Ghana bi yaakaaroon ni timis ak cosmos ñoo ko def mhm. ma sa saa wóoruguma mais maa ngi ci liggéey ba tey